Muhammadu Rasulullah ayca merci beaucoup jërë ngeen jëf euh, yéen ñi nga xam ne yéen ay yi safo euh, di bàyyi xel euh, le groupe Futur Média rawatina ak TFM chaque samedi weekend start nga xam ni heure bii dañuy ñëw wéttali leen rek ànd ak yéen tey nag dinañ am weekend start boo xam ni moo tax nu ubbee clip boobu nga xam ni Youssou daf ko way yonent bi nu léemu li nga xam ne mooy corona bi lëmbi réew mi corona bi nga xam ne fekkoon na ñëpp jàpp seen i activité ah, mu yàqaat événement yëpp xale yi tarkal ñu ngi doon waajal le 27 ah ministre bi génn wax ba démb maa ngi laaj ndax ministre bi daa meñcee euh, wala la mu waxoon mais corona bi nag vraiment euh, war nañ ko gën a respecter mm, war nañ ko gën a fonk war nañu gën a respecter les mesures barrières parce que ñëw beeg dem bi beneen vague bi ñu doon gis en Europe wala ci yeneen dëkk foog naa ni euh, moo ñuy commencé xeeñ yàlla bu mu yegg si mais cas yi muy commencé yokku te war nañu gën a mën a bàyyi xel euh, li nga xam mooy takk suñuy masque ah gën bàyyi xel bu ñuy ñëw ñu raxas suñu ay loxo euh, awa gay corona gi song na dëkk bi te vraiment événement yi mu nar a yàq surtout mm-hmm. acteurs culturel yi Euh, euh, weer bi seen weer exactly mhm. weer bi seen weer la te mhm. décembre nekk na am weer boo xam ne am économically euh, dafa baax ci réew mi ne nit ñi si lañuy ñuy gën a profité. Mhm. pour pour pour am benn relationship boo xam ne ku gëj gis sa morom xale yi surtout école yi yàgg ameen décembre daal mooy mooy the the best month of the year. pour xale yi ak pour économique bi tamit def ci joué partie bu bare bare surtout si artistes yi Abba parce que tëjoo tëjoon nañ leen for a long time. and then ñu ubbi waat ñu xawoon a xaw a usine naay yi la ñuy wax mm-hmm. uh, and then um, wax dëgg de yàlla affaire yi dem di kontaan ak again uh, ñëwaat si uh, weekend start di leen nuyu di nuyu téléspectateurs yi ah, the best month for the party for the show for the holidays ba pare apart from loolu Eh, xale yu jigéen ñi si lañuy gën a jënd ay vaisselle ñuy sëy pour defar seen seen i xam nga mariage yi bari fête yi salon salon yi like lii lii dafa affect so many um, aspects in terms of beauty bi um, tourism aspect bi mm-hmm, lépp daal mm-hmm. corona dëgg la affect na sax mais décembre bi xaaruñ na woon ne euh, dina doon parce que Sénégal demoon na benn instant amoon na trois cas Euh, nos décès. ñu bari ñu ngi doon wér yenn saa yi sax daan du ñu am ka. yenn so uh, you know uh, soo demee ba ba nga ne ok léegi da ngay toog rek xaar 00000. ñu nga jékki-jékki am um, affaire bi ñëwaat. ay 99 it's a bit discouraging. ah te discourage na sax xaw na laa laalaale sax weekend star. wallaay dëgg la parce que ñun il faut ñu respecte parce que organisé wul nañu ba fi ñu nit ñi dootuñu ñëw euh, présentement di présenté wu wax. wala wax seen i ay clip dañuy jël clip bi daal di koy teg daal di ciy wax donc vraiment euh, ku xam groupe Futurs Médias xam ni ñuy fonkee euh, parce que nag corona bi mu ñëwee ci entreprise yi mu njëkk a laal groupe Futurs waaw waaw waaw ci la bokk laal yu bari ñoom euh, bari na sax ku lim juum ñi nga xam ne ko ah wala su ngeen ma ko permettre rek ma lim ah ah ah di di ci am koo xam ne sànq maa ngi koy cokkaas moom cas communautaire bi mais nee moom dafa am immunité waaw nee na dafa am immunité te bu mu gëm parce que yëpp bi na dem mën na ñëw comme mën na mën na ñëw examen gëm ne bu la dalee dootu la dalaat na moytu rek te nga moytandiku ndax ñu nit xam nga dalaguñu ñu nit ñu ngi ñaan yàlla dimbali ñu rek ba bu bañ a egsi ci ñun donc nga sa dimbali ñu wax ba mooy profité di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu ñuy seetaan di wax ne tey weekend start bi bon du mel comme ni daan mel mais ñun ñu ngi fii te gëm nañ ni war na mën a neex rek comme surtout nag économiquement xam nga tey événement bu amee xale yi jëndi robb ñii jëndi o ñii jënd dàll ñaw lu boîte de nuit di dox nga loué chaîne à musique ñi nga xam ni ku nekk ci li nga yëngu dafay dox maanaam réew mi fépp màjj màjj ci mois de décembre bi tey euh, corona war ko yàq yow mi nga xam da ngay dem ci restaurant yeeg pala yeeg yooyu tey euh, waa ji doon vingt cinq vingt quatre vingt six trente trente et un premier nooy dundee loolu

wéttali. di nuyu ñëpp nag moo tax ñu éliminé ko <laughs> distanciation euh, distanciation sociale bee tax ñu éliminé ko mais ñu ngi koy seet bu baax a baax a baax démb dafa sopp ne day dem football ji football ji amul entraînement dem football ji xoolul fa muy tàkkale mu rëq tànk bi. waaye Balla amul laf nag. amul laf <laughs> dama xamul lu muy football sax. wala is nooy booy. no <laughs> strong no strong. mbaa du comme <laughs> ah ma nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi ci monde entier bi. surtout waa Nice ah, ak waa dëkk bële aussi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. Oh. waa dëkk bee ñoom dinañ xam seen bopp. yow ah, nuyu waa yow kii nuyu waa. maa waa Nice waa Rue sama ñoom yaay ñoom oh. maman Fari ñoom faatu mm. ñoom Modou ah ak ak ak ak <laughs> sama ak sama jëkkër ji waaw ak suñu jëkkër ji sax wax ah chéri ji ñu koy nuyu. <laughs> fa leen daan dem ndeysaan yal na yàlla defal la jàmm yal na yàlla defal la jàmm yal nañu yàlla musal ci corona mm. ba ñuy dem nii sax ah, di jël vol waaw waaw dëgg la na mën ñiis na mën nañ xam nga moom xam nga taarkal la na mën nañ ñiis caw sa xiir caw sa xiir caw ay seetaan nañu seetaan nañu suñu premier clip euh, fii tey ak Youssou Ndour moo léemu plateau bi tey ak euh, li nga xam ne mooy corona gi ñu ñaan yàlla ñëpp am jàmm ñi nekk ci hôpital yi yàlla na leen yàlla teg loxo nu jukk ñi nekk ci prison yi tamit yàlla yàlla dimbali leen ñu génn te bu ñu génnee bañ a def loo xam ni daf leen fay yóbbuwaat euh, waaye ñi nga xam ne ñoo ne ci ay problème moo xam problème financier moo xam problème de famille moo xam problème bu mën a doon yàlla na yàlla leen mais nañu dem xool ñi nga xam ne dañuy <laughs> problème euh, booy ñaan problème jeex uh-huh. am na ñoo xam ne ñoom dañuy ñaan ay un problème deux problèmes dix problèmes vingt problèmes mille problèmes dix mille problèmes. aba ah ah rang muy gaaw. ak daam seen nañ xool ko di ñëw kii bi sànq la dix mille problèmes ak daam seen ay ca ay problème day ñëwaat. A e bomba clad man walk one right hand up pick up dancer similar set. Damn set. Ring. We go. Dimali a gatane pala muike kana sumaye kon rich west. I alaxira wam wam wam e waxa biya rang muy ga kanam mu lay ma rang muy ga kanam mu lay ma rang muy ga kanam mu lay ma rang muy ga kanam mu lay ma rang muy ga kanam mu lay ma wam wam wam nita ten thousand miles from alaxira wam wam wam señ Modou Gaynde ten thousand miles from alaxira Vandalism. mu ngi noonu donc rang muy gaaw 10 euh, 000 problème ak ki nga xam ni mooy Dame euh, bi nga xam ni dina bari TikTok lool. dina bari man de ma ci lu ma ci gën a amee hmm. mooy. kii mel ni sama feebar lox-lox. <laughs> yow yaa ngi tudd 10 000 ci 10 000 nga bëgg a dugg. non non non eh, du problème. lox loxam. ah bi ah, la moom nit na da kenn du wax. moom nit ñi day tontu parce que man man personnel bi ma ko seetaane ak um, li ma jot a xam si moom. séentuwuma ko pour mu woy euh, comme mbalax. du mbalax woyul mbalax de. waaw léegi rang rang rang like daf doon lox he was shaking. parce que day wan ni li mu nekk du rab kee mooy mbal euh, kee mooy mbalax. moom mu ngi rab non yaram mi moo doon. vibré day góore rang rang mais moom rang yi boo gisee ci Instagram buy wax rang nii day day am force. rang bi da lay dal sax boo mayu la bi waaw waaw nga nopp lii lan la. nii la koy defee. donc mu ngi noonu clip la boo xam ne wax naa ni. Euh, dina bari euh, ay TikTok lool lool lool 10 000 problèmes ñaari ambiance la. 10 000 ambiance ci hip-hop ak donc vraiment lii moom euh, dina bari ay vues ci YouTube bi mais dina bari ay TikTok lool lool lool lool. lool bi dafa original. mais nag mais nag bu ñu toogee tey le 12. Euh, sama yaay laay njëkk souhaité un bon anniversaire sama yaay ji ma jur euh, yaay ah ma soxna yàlla na yàlla bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te ak ñi juddu ci bis bi yëpp yëpp yëpp donc yàlla yàlla ak ñoom Toumani Ndiaye ak Toumani Ndiaye moo moo da sama waa ji nga xam ni ma nga dëkk ca Kaolack waaye ñëw Dakar mel ni ku fi juddoo euh, moom i tamit ah fils de ki nga xam ne mooy Samba Ken l'homme de Bonavita doomu yaayu ki nga xam ne mooy Papa Doro Doro chéri Clara baayu Latifa ak ah, Dabax mu ndaw doom yaayu ki nga xam ne mooy ah, Moundiaye Rahma waaw kay Toumani Ndiaye joyeux anniversaire vidéo bi da koy dagg jox ko tumaani mu ko li mën naa cee mos lu ne li ma ko waxal ni mën naa cee mos lu ne la la woon anniversaire son excellence waaw ku baax mais président dafa def tweet mm. dafa def tweet tweet mm. bu ma daaneel oh. euh, mais yow baa souhaité nga ko joyeux nañ ko parce que président dafa tweet li mu tweet mooy euh, dafa kontaan euh, fi corona bi toll nii président kontaan na je remercie du fond du cœur tout tout ce et celles euh, qui m'ont envoyé des milliers de messages de vœux et de prières. à mhm. ce 11 décembre jour de mon anniversaire merci beaucoup ma ne ko corona moom président xanaa xamul ne ñun dañoo aaye ñun xale yi le 27 ñu dem foofu fële euh, ca Maziglan. ah président kan. <laughs> mais mais mais Aba le 11 président war na mën a kontaan. Ah, ah, ah mais yow nga gis ñëwagul lu ne mën na fay xaj décision yi na changé kaay wàcc on sait jamais mais moom mi ngi anniversaire di dund émission doo ko ba mu dundee yow. ah joyeux anniversaire notre très cher président quand ah euh, yàgg fi lool te wér. suñu président yàlla bàyyi ko ñun daal man sama président sa président jëkkër la mais yow du sa président yow Adama Barrow mooy sa président. laay lay la laa. wala yaa ma fi gën a bokk maa ngi jégalu am am am sorry mhm. am sorry am sorry. am nga ci bee boor mën ca bee boor. kon euh, Adama Barrow. Mhm. Euh, Macky Sall la mooy léppam. Mhm. so happy birthday on behalf of Adama Barrow xam naa ne sax euh, wish na ko te xam naa ne cadeau bi ñëw na. Mhm. waaye di ko wish rek avant. Adama Barrow la yónni. <laughs> Adama Ba. ayca <laughs> am na euh, tamit benn. Baye Amadou Ibrahima Baye Xaptum mais mais mu bàkk son excellence. Baye Amadou Ibrahima Baye Xaptum. ah mooy Kor Marème. tarkalla yoroon dégg réew mi le père de la nation kenn du yow souhaiter ku la neex. yàlla na ko yàlla bàyyi ñun ah, bàyyi ah, bàyyi. Ah. woo ñu eh, woo ñu ah. <laughs> après président woo ñu. la lépp. côté solo yi nga nekk li ñuy waajal yëpp ma wax président am na ko fi suweete nga ne dagg nga ne mun naa see mos te nga toog say nawle. egeen mhm. nga ne excellence woo ma. Mhm. ñu. dara mos fee am te bokkuñu ko. président woo ñu. Uh-huh. fii la fi jaaxal ñu ko yow jaaxal gisuma ko. dama di ma seetaan. Mhm. jaaxa dama gisoo jaaxa. ku nekk moom laa am. waaw ah, tur war a gisaat jaaxa. <laughs> Ah. Ah, ñu ngi nuyu suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy wéttali. sek san bi ñu nga ca kaw di daaj. ñoom dañuy daaj moom. ñoom moom dañuy daaj. ay daajkat lañ waaw man man bébé bébé Ndeye Penda rek ah ñeesu Yacine Yacine suñu mm-hmm. moom ñeesam bu baax la bu nekk fële ci zone A bébé Ndeye Penda on te souhaite une longue vie et ñëw na Balla ñëw na Balla Isié. Balla sa tànk bi Balla <laughs> mu ngi tane ok Balla Diop ay nañu dem ci maa weekend weekend eh, ak ki nga xam ni moom mooy Awa Gaye ñu xool weekend bi eh, naka la tàmbalee. live bi ñëwul. live ban exeegul ah live bi exeegul pour Awa Gaye xam ndax mu ngi eh, taxawal taxawal <laughs> live bi yéen ñeer live bi ay waay fu ngeen toll ci Awa Gaye mi ndax ñu am jàmm. ay waay oh, live bi Awa Gaye ko kaas fi nee na man. sama sama euh, mbokk yi dañuy xam nga ñun ñaar ñëpp la parce que ñun ñaar ñoo njëkk sa rubrique parce que live bi yàlla dafa dogal ne. ñëwagul ñëwagul oh, ah, dem euh, seetaan euh, ki nga xam ne du ma gaaw a wax turam waaye koo xam ne la tey tey jëluma artiste. tey euh, jëluma fecckat euh, jëluma euh, koo xam ne dafa yëngatu ci affaire wa entertainment ki ma jël tey ci beneen facette la nekk facette boo xam ne mooy wàllum sport mu nekk an athlète mu nekk an international basketball player waaye Sénégal fier ci moom bu baax a baax a baax a baax mu doon xale nag gars yi xaar leen ko dem leen seetaan my weekend ki ñu àndal star bi ñu àndal tey kum doon den bu ñu dellu see ñu gën a yaatal ci xale boobu yow Sénégal am na avenir. ay ndaanaan dañ fee bari. macha allah macha ay xale yu mel ni man dañoo ba astafurlah. yu mel ni ñun. waaw bari ci réew mi duñ fi jeex. nañ dem xool du ñu wax may weekend tey kal la am ayca ayca mu ngi noonu euh, Assane Sy euh, tey euh, moom la ñu amoon ci my weekend donc Assane Sy Awa Gaye nga seeti ko mu nekk ndaanaan pire. ma seeti ko mu nekk ndaanaan ma seeti ko mu nekk koo xam ne dafa am benn discipline boo xam ne dafa nekk si moom mhm. mu xaw a mu xaw a raar tuuti nag si dat domaine parce que mhm. am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy yëg seen bopp suñ de yeggee dat niveau international mhm. but Abba mu nekk ko humble so much mu nekk koo xam ne dafa dafa neex a liggéey comme mu dafa doon innocent innocent lu quoi boy naa ko wax nag ah. <laughs> di di like um, but on a serious mu nekk ku yaru aba mu am loo xam ne ci moom ah, dafa dafa jafe si jamono juñ toll nii mooy kóllëre. Eh, ndaxte fii gis nañ fi nit eh, dalay teg ci yoon eh, nga dem ba nga fiil sa bopp mhm. nga fiil na nga beew mhm. ak yooyu noonu exactly but moom daf ñu yóbbu fi nga xam ne kooku ki nga xam ne moo ko jàngal basketball depuis mu amee sept ans mais kooku ne ne depuis xale kii am quatre ans la daan ñëw di foowantu ak yooyu mais mi ngi engagé li nga xam ne mooy passion mooy basketball mhm. depuis bi mu amee seven years paa bi di ko di ko coach bi depuis boobu ba tey nag nee na every time dafay wax ak ak ak paa bi abaa xam nga lu leneen lu ci gën a interesting mooy lan comme yow ni ngay def sa doom bi. Mhm. sooy dem football da nga koy yóbbaale. papaam tamit he is into sports. soo gisee papam he is very young doo doo xalaat sax ne kii comme papaam la ak yooyu. exactly kon euh, parent yi euh, man li ma jot a observe li ma jot a jàng si euh, Assane digganteem ak papam ak coacham bi mooy sa doom da ngay teel a xam passion fu mu nekk nga jàppale ko si si that aspect Aba kooku moo nekk Assane nag mi nga dafa dafa join si li nga xam ne mooy équipe nationale bu Sénégal bi. mu fas yéene fee def lu bari ba te am na ay projet yi nga xam ne ah, mi koy séentu pour liggéey ko ak Sénégal di di boole woon maak moom man sama pour wàllu kóllëre moom mën naa ko ci seedeel parce que mhm. Assane ba tay ji boo ko gisee ñi muy àndal mooy ñi mu daan àndal depuis Saint-Michel parce que mhm. man à la base xamante ay mhm. ci ay basket wantu parce que man dama doon basket wantu mais ñoom après voilà perdu de vue dem na gise bi bëriwul déggante bi loyal. c'est un mm-hmm. gars super loyal. te maa ngi koy ñaanal ah next step. nga yow yow moom fan ngeen xamante. Saint-Michel di def lan. basket yow mi <laughs> man mu baax mi seet ma nii yow abaa bu ma xeeb bul xeeb. yow nag jii xam nga lu tax da gëm. da ngaa gëm sa bopp yow te doo wax ko dëgg. Eh. yow sa taay bi yow fan nga yow fan nga yow sa mais eh, yow moom temps boobu ñoo tolloo woon te ngi nii njool dafa gëm boppam eh, topp affaire bi man topp ma ko rek ñoom luy Adam waa kii dafa di jee Faati Faati yàlla jàmm moom yaay Faati kaay Faati kaay kaay Faati kaay rek kaay kaay Faati réew mi la bëgg kaay Faati kaay kaay kaay Faati kaay rek Faati kaay dimbali ñu kaay Faati réew mi la bëgg kaay kaay rombal awal ni Faati awal ni kii réew mi ko bëgg kaay awal ni Faati réew mi la bëgg awal ni nga yëg awal ni waay waay maa ngi soog a maa koy soog gis ni waaw man yow do do Faati yéegal yéegal Faati Fati yéegal s'il vous plaît. <laughs> Balla wàcc na Fati kaay kaay. Balla wàcc na oh. oh. Fati kaay toog nii Fati toogal nii. Fati toogal nii ay eh, waay. ay Fati indi leen ma micro Fati ay waay yéen. Eh, eh. mais eh, Fatou il faut mu wax réew mi bëgg Fatou. waaw loolu moom dëgg la mooy journaliste bi nga xam dafa am ay fans ay waay dimbali leen ma waay. Ah. kon Fatou Dieng ay Fatou Dieng ñu ngi waay bu présenté rek présentation Dieng ay waay micro Fatou. waaw tey ma ko jox sama ay waay Fatou mu mu ne soo waxee nañ la dégg Fatou ñun. quel corona wax mën ngaa di eh, kii kii li sa masque. dara wóorul de Fatou dara wóorul neexul ku baax ku am diine ah. Hmm? dama war a def journal ma woo a mais Faty est que xam nga ni réew mi dañ bëgg waaw que xam nga Sénégal yëpp yow la ñuy bëggee ak ak Gambia maa leen sa yar man man moom dama ko bëgg man sa tegg sa professionnalisme mm-hmm. sa dal ci dal bi surtout sa tee bi nga xam ni na nga woo ko sensi ak taar gi Faty ak ma si lépp daal Faty wallaay wallaay ku leen allah ak allah mm-hmm. <laughs> lii lañ doon rêvé nag <laughs> fu ñuy jëlee invité yi fa yàlla indi la yàlla mën na lu ne. c'est maanaam ma nuyu seen téléspectateurs yi leen di seetaan. Mm-hmm, di mm-hmm. am mbégte ah, di leen féliciter également ci liggéey bu rafet bi ngeen di def. Mm-hmm, vraiment vous encourage parce que week-end bi les gens quand même dañu soxla. xam nga euh, relax tuuti. kuy dindi seen stress a koy def dindi mhm. stress la mhm. euh, mhm. team merci na bu rafet vraiment ñu la Fatick 13 nag bu doon sama sago euh, doo jug da ngay xaar ba ñu lancer élément. Mm. nga soog jug yow sa jub waaw waaw yi mën na indi yëpp day bari donc euh, tarkal la <laughs> ñu leen xooli clip Samba Peuzzi euh, bi nga xam ni bokkoon na suñu invité tey euh, te mënul ñëw corona moo ko waral donc dañu dem xooli ko bu ñëwee ñu waxtaan ci balaa ñu dem jëlaat beneen invité yëpp ci ay clip dañu koy waxtaanee tey ay ci waa Régis bu ngeen paree ñu dem bu toogee nu laaj ko daal di waxtaan ak moom mais comme kay euh, Samba toogu fi dañuy dem rek euh, ci clip bi xool originalité bi nga xam ne moo am ci clip bi et rappeurs yi ni ñu commencé euh, di open mind quand di jël li nga xam ne moo instrument mbalax yi ak les mbalax maan di leen boole ci seen yëf. actually man style mu clip bi boo xoolee um, Samba is a star of course waaye boo xoolee clip bi it's very simple. bariwul ay nguñu nga ñax here and there the plain background xale yi ñëw sañse am artistic work bi si am daal it is very very nice ah, xaw waaw ñoom loolu ay ego la seen wax la waaw ku ci nekk da ngay waxal sa bopp yu baax am na ku toog ne maay seen baay keneen ki toog ne maay seen grand frère hmm. am na keneen king euh, king baaba hmm. ah, moom egsi na nekk king king baaba moom ba pare gis moom day finaalu moom waaw commencé ci li nga xamante ne mooy sabara hmm. bokk na ci ñi ko njëkk a imposé yi Sénégal donc ñu gis tamit Samba Peuzzi mu ngi jël tama bi xaw ci def ndaga macha allah donc man je trouve que c' une évolution par rapport à la musique sénégalaise surtout ci côté rappeurs yi. Mhm. donc lii c' une bonne chose honnêtement. am man bëgg naa ruubee tuuti boo paree xam nga man maa ngi ciy bi su ma neexoon ma ne ma grand père. maa ngi seen maam waaw yow da ngay teel a toog ah. def mhm. mais gars yi dañ ko doon clash léegi xoolal léegi ñëpp ñu ngi wax keroog maa rap c'est le rap mais mën nga ko rap si instrumental bu nekk donc je pense que ouverture bi tam comme ni nga ko waxee c'est c'est c'est magnifique et que voilà heure bi Fata war na mën a toog fii voilà waaw ak Daddy Bibson ak ñeneen ñi amoon nañu ko yàq Daddy Bibson ak Xuman ak Rapadio li ñu yàq euh, bi fa Fata doon def yéen ñi xamul waar Rapadio mooy ñoom Maxtaar la Kagulaar ah, genre boobu waaw ñi nga xam ni temps ñoom Black Mbolo temps ñoom cant beeg rab bu neex boobu. nga ñoo ko dindi. yàqal ñu musique bi. waaw dëgg la dëgg la man <laughs> léegi clip bi may bëgg ñaan euh, ki ko way am ministre euh, ki way clip bi am ministre mais eh yéen a ngi fàttaliku temps Bamba Ji Fall. waaw jolli na ndeysaan waaw. Bamba Ji Fall moom jolli na koo ma wayalee lii ma may la ñaari junni. <laughs> yow nag yaa ngi rafet occasion yu bëri pour am xaalis aw nga ah, ci plateau bi. amba ji faal moom jolli naa. bu kenn dem de eh eh ma ne fi kàllaa kenn ma ne fi kàllaa yow kay yow kay ma jox loolu ay retour laa ñu jox. ay retour laa ñu jox ay retour laa ñu jox maa ngi ñëw. Ah, ay retour laa ñu jox yow sama sama vingt euh, dix mille naka la vingt mille la. yow yow euh, non non non non. amoo fi dara yow wax ma lu ma toll. non non yow dama lay jox son Gabriel nga woyal ma noonu noonu. commencé naa. boobu est-ce que juddu naa. amaa sa bopp. waa Rapadio mi ngi nii eh, dégg taa Rapadio lu métti la woon saa yi. hardcore underground. yàlla même sa xarit mu am ñaari korite ñaari tabaski ak leer itam xarit gënal bi ñu fi yonent yi baaxee ñu waroon koo xewloo tegg nañ ko teg fee jàkkaarloo tey jii di feewloo gaañee nga teggi seen yoon di daw ci kaw terrain miiné da nga dem bëri dëkkandoo bi nga bokkoon diine miiné ngeen ñi fooyoo yàlla di sàkk ne axiixa ba nopp ku nekk di bëgg ci sa mbirum sa mbirum tax ko fekk non pour déglu la rek. soo mënee la boo mënee gis ko la wedd tey jii ba suba rek nga gis ko. ñàkk am xam-xam ba sori sol bu gàtt ak ñàkk moo tax nit tëb daal di waat barke diw barke diw yàlla du nit te du nit war di waat ci nit ki moo am. wala da ngay bëgg a fitwee seen borom di ko jéem a wutal morom nga jéem di bokkaale. sa sëñ daan dugg bii dafa metti woon mais bii avant muy ñëw am na bu neex bu fi amoon. mooy bu am mbalax mi saf sàpp ñu ciy wax soxla xale yi mën koo fowee jigéen ñi di ko duggee waañ ak yooyu bokk na ci blague mbooloo. te àdduna àdduna la mi. waaw waaw waaw

xool li lënd la li eh, dëgg la eh, dëgg la li amoon na ay waaye leen caaxaan ñu topp programme bi ay waaye topp programme bi kii ab ministre lay way mais ni mu wayee ministre da yëngal réew mi Tarba Mbaye Diène ah. Farba la way commencement bi nga ñuy may Pape Samba joxaat ñu antenne bi ñu waxtaan. tey la la 12 nga ñu fin bi waaw. Oh, tey la meeting ba suñu meeting bu mag bi. Oh, mais amatul amatul amatul amatul. amatul dal Pape Samba fi nga daggee clip bi foofu la clip bi fi nga daggee clip bi foofu la clip bi foofu la foofu lay woowee ministre bi waaye foofu la ñuy compte foofu la foofu la la ñuy rendre hommage ministre bi. <laughs>